aji kame jàng leen ngir yàlla bis bu set ngeen nekk ci whatsapp bi rek guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg ngeen topp whatsapp bi bu ngeen demee école seen morom yépp ñoo leen i raw bàyyi leen seen caaxaan yi te jàng te jéem a def na seeni morom xanaa bëggu leen a doon dara ëllëg ngeen topp whatsapp bi rek aji sa yaay mii li wax dëgg la war nañu xoolaat suñ bopp de fekk ci téléphone yi ba suñu bët yi di jooy man na li mu wax bàyyi naa ci xel te yow sax nii koo waxaal ndax dangaa dëgër bopp léegi sax farantoog lépp nga def man moom li sama yaay wax dégg naa ko bu baax cim ane sax am na jom yow nga nekk fi jàngaloo ko biijoo ko miiñoo ko miiñoo cim yow dafa iya, gën a iya, lii mën naa ndax xam dara yaay nag moom dangaa mën a wax yow lii lan la li may def dara nekku ci ay doom te nga sa yaay di te yem ci ku la ci géet aji sama namm naa la lu bees yaa ngi doxal ay momo momo ci nga ne namm naa la de boobu ba léegi mënumaa réviser ndax namm la bi ma la déggee dama ana sa yaay ju fiir gi mi ngi foofu di fiir rek ah mais sa yaay fiir na de du nu bàyyi ñu dund ñu dund suñu jamono ah ñoom meer dund weesu na kay bàyyi ñu dund suñu jamono ni ma yi de moom xam naa ne moom balaa yàgg bëgg naa nga ñëw fii seet si ma ah. sama yaay bu yëgee ne maa ngi wax ak yow boobu ba léegi moom ma jàpp naa ne damay réviser dama réviser mais man dégg na doo ngay sama itte. ah mer boobu yi muy def daa xewi na la bàyyi nga dund sa life ah gis nga yow xamoo looy def sa bopp bi di mel ni balu basket dégg naa jàngatoo topp gaayin bi nekk ci koñ bi gis nga boo moytuwul mbedd na dal ci moom ay ku la wax loolu yéen xale yu góor yi moom soxor daa yàgg ci yéen ci yor lu baax rek ngeen fexe ba yàqal ko ko xam nga maa ngi wax nga naan ma dangaa soxor te lu mu bon bon jàng nga fala taxurrannakum alxayaatu dunia wala yaxurrannakum billahi alxaruur bu leen àdduna wor te seytaane muy noon bu mu leen wor bis boo def dooloo nag yow moom loolu ñuy wax dina la dal na àdduna dina la wor ay ko bon nga doomi jàmbur ji nga jël nekk ak moom ba ne fes kenn gisatu la loolu sama yoon nekku si man moo ma fekk si fekkiwuma ko këram fii jigéen ju fiy ñàkk fayde ba dugg ci groupe ñu jël la PV nga nangu luñ la def nanga ko mën a seere man sama yoon newu ci de man fekkiwuma kenn jigéen bi ñàkk fayda ba war a jàng di jàdd di fekki góor lu la def na ko mën a seere sama yoon nekku ci